bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma baad doomu nday mbokk jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dolli koy xéewal ak mucc moom ak i saxaabaam ak képp koo xamante ni topp na ci seen njub ba keroog bi suñ penc ginnaaw loolu di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Euh, mbokk mi day laaj est-ce que li nga xamante ni moom la ñuy gis Sénégal ci yenn marché yi bisub ajuma bu ñëwee ñu daal di jël ab kaamil daat koy tas kenn ku nañu jox la ab jukki bu ko defee ñu wàccee kaamil neen est-ce loolu sunna la wala dagan na ci sharia euh, yaakaar naan ngir tontu loolu am na ay mbir yu bari yoo xamante ni ñoom ñoo ci aju ci masala bu ni mel eh, yaakaar naa ni buñ ci xuusee dinañ guddal lool waaye dinañ eh, jéem suñ kem kattan ci tënk di wax ni loolu ñuy def di ko tuddee wàccee kaamil warante amul ni ñoom jaamu yàlla lañ ci jublu te jaamu yàlla sax lañ ko jàppee jàpp ni yàlla subhaanahu wa dina leen fay ci loolu ñuy def foofu am benn régle boo xamante ni moom lañ war a def ndëslaay mooy bépp jullit war na xam ni lii di jaamu yàlla la ciy cosaan mooy nit ki amul droit di def benn jaamu yàlla lu dul def ci am ndëslaay boo xamante ni bu wér la bu bàyyi ko ci téere yàlla bi wala sunna yonente bi alayhi salaatu wassalaam looloo tax boroom xam-xam ni liy cosaan ci jaamu yàlla mooy at tawqiif mooy nga taxaw bañ a def dara benn jaamu yàlla amoo droit di ko def lu dul dañ ci am ndigal boo xamante ni dafa bàyyi fa yàlla wala mu bàyyi koo ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam lu dul loolu rek boo sosee benn jaamu yàlla te amoo ci ndigal loolu dañ koy tuddee bidaa moom la yonente bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ni man axdata fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd képp ku sos ci suñ diine ji loo xamante ni ñun amoo ci suñu ndigal nee na loolu dañ la koy delloo maam doo ci am fay lañ ci am sax mooy bakkaar ndax booba danga jalgati jéggi la nga xamante ni moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale moom la yàlla subhanahu wa taala rëdd li nga xamante ni moom mooy ci yoonam bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ci beneen xadis feddali loolu ni man amila amalan ndax nit ki mën na ñëw ni ah lii del ku sos yonente bi alayhi salaatu wasalaam sos la wax te ñun sosuñu mais dañoo def yonente bi ñëw fa pour leeral ni man amila amalan képp ku def sax benn jëf kon ka sos am na bàkkaar waaye tamit ka def la sos am na bàkkaar kon lépp lu sos bidaa la te bépp bidaa réer la te bépp réer fa mu jëmale boroom moom mooy fi nga xamante ni mooy safara loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daan na taxaw di ko xutba ci bépp ajjuma wala xutba bu muy def rek doon na wax ni inna alhamdulillah baba muy egg ca wax ji ni fa inna asdaqa alxadiisi kalaamullah wa xayrul huda huda muhammadin sallallahu wa sallam njub bi gën ci njub bi mooy njubu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni lépp loo xamante ne dañ ko sos loolu la ñuy tuddee bidaa te bépp bidaa réer la te bépp réer fa mu jëme boroom moom mooy fi nga xamante ni mooy safara kon ginnaaw loolu lañ ciy déggee mooy bépp jëf bu doomu aadama bi di jëf jublu ci jaamu yàlla la cay cosaan moom mooy mu taxaw ba keroog mu ci am preuve bu fekkee loolu amul rek bu ko defee tabbi na ci li nga xamante ni moom mooy bidaa te loolu nga xamante ni moom la mbokk mi wax mooy wàccee kaamil boobu ñuy def sak ajjuma wala sax ñu koy def bu fekkee nit ki faatu na wala sax ñu jékki rek woo ay nit ñu dajaloo di wàccee kaamil loolu lépp nekkul loo xamante ni lu sax la ci njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yonent bi nag ay saxaabaam am ñoo xamante ni dee nañ ay kanamam ci saxaaba yi doomu Ibrahim dee na waaye dajalewul saxaaba yi ñu leen nañ leen wàccee kaamil daawul toog tamit ba bisub àjjuma rek mu dajale saxaaba yi ni nañ wàccee kaamil kon loolu yonent bi alayhi salaam defu ko. te ñoom ñoom saxaaba yi ñooñu gën a xam dund yonent bi gën ñoo xam yoonam te bu fekkee defuñu loolu kon keneen ku ñëw def ko seen ginnaaw def nga loo xamante ni lu dul yoon la ndax ñoom ñoo ñi nga xamante ni ñoo gën a xam yonent bi gën a xam njubam gënoon xir ci topp ko lépp loo xamante ni moo leen di jëriñ di jëriñ doomu aadama yi jullit yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal na leen ko bañ na ko sax ba dañ daan wax ne yonent bi lépp lañu jàngal même ni ngay duggee sax ci duus teggina dugg duus yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na ko kon kooku lu tol noonu ci li nga xamante ne moo gën a néew ci li nit ki yaakaar nañ ko jàngale ta mooy ay teggini duus kon yaakaar na du bàyyi li nga xamante ni moo gën a rëy te bokk na ci li nga xamante ne mooy wàccee kaamil bi ñuy def kon foofu lañ fay wax mooy wàccee kaamil ci boppam du sunna du sunna donte ñoom lu baax lañ ci jublu waaye nekkul ni lépp lu baax loo jublu rek islam daf koo rafetlu déedéet looloo tax ci euh, jamono yonent bi alayhi salaam bi mu génnee àdduna yàggul tuuti rek am ay nit yoo xamante ne dañ doon ñëw di dajaloo ci jàkka ji kenn ku nekk naan nañ def bisimilah téeméer bisimilah nañ def téeméer alhamdulilah nañ def téeméeri subhanallah abdullah ibni mas'ud daal di ñëw ñu leen waaw man xanaa damay bëgg a jaaxle mu ni ko lan la mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu génnee àdduna sax yàggul yëreem yim soloon sax wowagul moom lam ca namm rek mooy dàkkantal ni diir bi dafa yàggul dara diir bu gaaw la ni ndab yam daan lekkee sax ah tojagul lam ca nam mooy dàkkantal diir bu yàggul dara la ngin naan kenn ko na def bisimilah téeméer subhanallah téeméer alhamdulilah téeméer xanaa man damay bëgg a jombi ñi leen ñu ni koy ma aradna al xayra ma aradna illa al ya ba abdurahman ñun de rek lañu bëgg bëgguñu lu dul mune ni leen ana ñaata nit ñoom ñoo bëgg yiw te xamuñu yoon wi ñuy jaar fa kam min muhibbin lil xayri lam yusibhu ana ñaata nit ñoo bëgg yiw waaye xamuñu yoon bi ñu koy jaar kon mbir mu nekkul ni day doy rek nga bëgg yiw waaye boo bëggee yu tamit da koy jaara ca yoonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam looloo tax am na ñaari condition yoo xamante ne ci la ñuy nangoo bépp jaamu yàlla boo xamante ne nekk na jaamu yàlla ba pare moo tax ñuy wax bu nekkul jaamu yàlla kooku taxul ñoo bidaa la te moom moo aju ci laaj bi bu demee ba nekk jaamu yàlla nag il faut nga sellal am ca sellal il faut mu am ca waaye tamit nga def ko comme na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam defee kon bu fekkee nekkul jaamu yàlla taxul ñuy wax te loolu moom moo aju ci laaj bi kon loolu nga xamante nit ñu ngi koy def tey muy ay wàccee kaamil loolu ay bidaala du sunna du yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon dafa war ci jullit bi mu moytandikoo mu bàyyi ko donte ñu koy def lu baax lañ ci jublu waaye nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu gën a xam lu baax saxaaba yi ñoo ñu gën a xam lu baax te lii lépp defuñu ko kon ngalawaay ki bëgg a roy na roy yonent bi alayhi salaatu ndax bépp yiw mi ngi ci roy yonent bi waaye bépp yiwadi mi ngi ci ñàkk roy yonent bi alayhi loolu lañ amoon lu ñuy wax ci gàttal ci tënk wallahu taala ala wa alam بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد دومن داي مبوك جلدي جناب يسنت الله سبحانه وتعالى جلدي ينتبه عليه الصلاة والسلام لنان الله سبحانه وتعالى تنبا خم مدفن التوفيق أه جناب لولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Euh, kii mbokk mu jigéen la day laaj mu ni ndax li nga xamante ni moom la ñuy tuddee uniforme mooy jigéen ñi bu fekkee ni xew am na moo xam ngénte la wala ceet la wala occasion bu ni mel est-ce que dagan na ñoom ñëpp ñu bokk benn forme bi ñuy solo comme tey niñ ko gisee est-ce loolu dagan na ak lan la ci charia wax euh, ngir tontu laaj boobu dañ naan lii cosaan comme ni ko boroom xam-xam yi di waxee lii cosaan ci lépp loo xamante ni am na njariñ mooy lu dagan la lii cosaan ci lépp loo xamante ni amal na njariñ jullit bi lu dagan la ñu koy al aslu fil manafi al ibaha am ñu koy tuddee al aslu fil ashiya'i al ibaha ah, kon cosaan ci mbir nga xamante day jariñ julit bi mooy lu dagan la julit bi te loolu wàllu solu daf ciy dugg wàllu solu ci la bokk kon julit bi am na droit di sol lépp loo xamante ni amal na ko njariñ ba keroog preuve wala ndëslaay di ñëw ci charia ni ko lii lu araam la kon bu boobaa nga ciy déggee ñi lañuy ñuy tuddee uniforme mooy jigéen ñëpp bokk lu ñuy sol ci xew nuróole ko kon lañu taataan ci sharia moom mooy dara nekku ci waaye nag ci kaw condition yi nga xamante ni moom la islaam teg ni solu jigéen nii la war a mel kon bu fekkee ni condition yooyu daje na ci kon bu boobaa dara nekku ci condition yooyu ci ëpp solo mooy na sol gi nekk sol woo xamante ni wu jot la na sol wi nekk sol woo xamante ni bu fatt la bu mu nekk lu yaraax na sol wi bañ a nuru nurul ak ay yére góor waaye na bañ nuru nurul tamit ak li nga xamante ni moom mooy yére yéefar yi waaye tamit bu mu am loo xamante ni parfum la bay attiré nit ñi waaye tamit melokaanu sol wi ci boppam bu mu nekk loo xamante ni day am couleur yoo xamante ni ku ko xool rek day ràññiku ba nga xamante ni nit ñi mën nañ cee bàyyi xel day attire kon la ñuy wax foofu rek mooy ni nga xamante ne noonu la charia islamique tëralee ni jigéen nii la war a soloo bu fekkee ni condition yi mat na ci kon ñoom bu fekkee ni nuroo nañu ay yére li ñu tuddee uniforme kon bu boobaa dara nekku ci ci li nga xamante ni moom la charia tëral kon la ñuy wax foofu rek ci gàttal suñ mbokk mi mooy uniforme boobu nga xamante ne tey jigéen yi ñu ngi koy soloo ci xew yi moo xam céet la wala mariage la wala euh, ngénte la wala ay tuur la wala yu ni mel ñoom ñëpp ñu bokk benn forme buñ soloo noonu kon boobaa mën nañu dara nekku ci ci kaw nag mu daal di dëppoo ak ni nga xamante ne noonu la charia islamique tëralee ni jigéen nii la war a soloo bu fekkee ni condition yi mat na ci rek daje na kon boobaa dara nekku ci hada wallahu taala ala wa alam bismillah alhamdulillah wasalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ama baad doomu nday mbokk jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dolli koy xéewal ak mucc moom ak i saxaabaam ak képp koo xamante ni topp na ci seen jub ba keroog bisum penc Ah, mbokk mi day laaj lan mooy atte seetaan ay théâtre kom yi nga xamante ni ñoo am Sénégal wala yeneen ñu ni ngir tontu loolu dañuy wax ni wàllu théâtre ci boppam dañ koy tuddee nit ki day ñëw jouer benn rôle moo xam dafa jël melokaanu beneen nit di jouer wala dafa jouer benn rôle boo xamante ni dafa am lu mu bëgg jàngale kon bu fekkee ni ci wàllu njëkk mi mooy nit ki dafa ñëw am benn nit boo xamante ni moom lay nuróol di jouer benn rôle boo xamante ni am na lu mu bëgg a jàngale ca kooku kooku boroom xam-xam yi wute nañ foofu ni est-ce que loolu muy def dagan na wala daganul ndax ñenn ñi nee nañ daganul ndax loolu fen la ndax tey bu fekkee ni ab nit dafa génn àdduna nga ñëw di jouer boo xamante ni moom la doon taxawee waa jooju kon nee nañ yow yaa ngi fen ndax yow doo kooku kon yenn boroom xam-xam yi noonu lañ gisee yeneen boroom xam-xam yi ñu ni déedéet loolu nekkul fen ndax fen mooy nga ñëw wax loo xamante ni amul walla nga def loo xamante ni amut waaye yow bi nga ñëwee ñi lay seetaan leer nañ ni leer na leen ni yow doo waaja waaye yow dafa am rôle boo bëgg a jouer am loo bëgg jàngale kon bu boobaa du dugg ci fen du dugg ci cadre fen yenn boroom xam-xam yi tamit noonu lañu gisee kon laataa ñu dugg ci atte théâtre dañuy wax ni moom théâtre ci boppam wala ay film ci boppam boroom xam-xam wuute nañ ci est-ce que dagan na ci boppam nit ki def loolu wala daganul bu loolu weesoo ñu ñëw ci atte bi nga xamante ne moom la laaj euh, la ñuy wax foofu mooy lii di théâtre wala film walla yu ni mel bu fekkee ne mucc na ci li nga xamante ne mooy lu bon ci tous les côtés nag moo xam jigéen la boo xamante ni dafa génn te solul lim war a sol wala ay yoo xamante ne charia daf ko tere ci lu bon lu mel ni góor di jox loxo jigéen wala ay fóonante am ci wala góor jigéen ñi dend wala ay musique am na ci théâtre bi ngay seetaan lépp loo xamante ni daal lu bon la lu sharia aramal bu fekkee ni làmboo na ci loolu ngay seetaan bu boobaa loolu dafa nekk lu xaraam jullit waru ko seetaan comme théâtre yi nga xamante ni ñoom suñ dëkk ba te mooy Sénégal amul benn théâtre boo xamante ne mucc na ci ci loo xamante ne lu yàlla araamal subhanahu wa taala ci lima xam boog ndax théâtre bu ci nekk jigéen dina ci génn te du muuru te yàlla subhanahu wa dafa araamal jigéen gi di wuññi karawam di wuññi awraam te loolu ma ngi ci biir théâtre kon théâtre yi am ci biir Sénégal ay góor a jigéen ñoo ko séq lu bon nga fay xool yow nit ki boo xoolee benn di nga gis jigéen goo xamante ni muuruwul te waroo ko xool di nga gis ay góor jigéen yu joxante loxo yu bokk toog benn jataay musique dafay am ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni sharia islamiya daf koo araamal kon bu boobaa jaaduwul ci doomu aadama mu koy seetaan ndax yàlla subhanahu wa taala nee na inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masula li nga xamante ne mooy sa nopp bi ngay déggee ak bët bi ngay gisee ak xol bi ngay taataanee loo xamante ni lu baax la wala lu bon la nee na yooyu yëpp ëllëg yomal xiyaam dañ leen di laaj te buñ la laajee doo am lay fa kanamu yàlla subhaanahu wa taala ni lii nga doon seetaan nangam ak nangam la kon mënoo ko layal kon li ñuy wax foofu rek mooy théâtre yi nga xamante ni am na ci biir Sénégal ñu koy teg ci télévision yi doomu aadama war na koo maytandiku bu baax a baax a baax a baax ndax bu fekkee ni da ngaa bëgg a xam luy yeete loolu di nga ko fekk ci njàngale yonente bi alayhi salaatu wassalaam njàngale la boo xamante ni bàyyiwul dara dara dara loo xamante ni day jëriñ jullit bi lu dul leeral na ko bàyyiwul tamit lépp loo xam ne day lor jullit bi lu dul moytandikuloo na ko moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nit ñi nañ delluwaat ci njàngale yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam ko jàng histoire saxaaba yi histoire yi moo xam ci ñu góor ñi wala ci ñu jigéen ñi bu ko defee dinañ ci yeewu waaye yi nga xamante ni tey moom lañu euh, occidentaux yi forcé ci ñu koy seetaan moo xam ci ay film la wala ay théâtre yoo xamante ne nit ñi ngi koy jee te lambo yoo xamante ne dafa nekk lu yàlla subhaanahu wa taala tere kon yooyu julit bi war na ko moytandiku ci gàttal lañ lay wax mooy amul benn théâtre boo xamante ni tey wala benn film dina mucc ci loo xamante ni lu bon la wala loo xamante ni lu ñaaw la kon loolu jafee na nga fekk ci jamono ji moo tax jullit bi na moytandiku loolu bu baax a baax a baax bu ko defee lépp lu muy def rek mu fexe ci am ngërëmal yàlla subhanahu wa taala wallahu taala ala wa alam bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ama baad doomu dañu bokk jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dooli koy xéewal ak mucc moom ak i saxaabaam ak képp koo xamante ni topp na ci seen njub keroog bi suñ penc ah, mbokk mi day laaj mu ni nit ki bu fekkee ne am na doom ana kan ci ñaari waajur yi moom moo am àq am obligatoire pour tuddee ko tour est-ce que waajur wu góor wi la wala est-ce que waajur wu jigéen wi wala nu muy demee ngir tontu loolu dañ naan boroom xam-xami islaam yi wuute wuñ ni lii di àq tuddee doom ku góor ki moom moo ko am maam ku góor ki waaye juru góor wi bu fekkee ni yàlla wërsëgal na ko doom mooy ki nga xamante ni am na àq pour tuddee doom ji tur waaye nag lañ cay sart rek mooy mu utal ko tur bu rafet waaye tamit bu fekkee ne ñoom ñaar way juru góor wi ak wu jigéen wi mën nañ waxtaan dëppoo ci ay kàddu ba tuddee ko tur wu rafet tamit loolu dara nekku ci waaye boroom xam-xam wuute wuñ ni bu fekkee ni dem na ba wuute am seen biir ka nga xamante ni moom lañuy ñuy wéyal xam foofu ak ki nga xamante ni ci lañuy sukkandiku pour mu tuddee doom mooy ki nga xamante ni mooy way juru góor wi waaye doon way juru jigéen wi waaye comme ni mu jiitoo bu fekkee ni mën nañ waxtaan seen biir loolu mooy li gën a rafet bu ko defee ñu utal ko tur woo xamante ni tur bu baax la waaye bu fekkee nag dañoo dem ba nga xamante ni wuute am nañ seen biir ka ñuy jël waxam mooy ki nga xamante ni mooy way jur wu góor bi loolu boroom xam-xam wuute wuñ ci bokk na ci preuve yi nga xamante ni moom lañ tettalikoo ci ndëslaa yi mooy doom dañ koy askanalee ci baayam ndax yàlla subhaanahu wa taala moo ni uduuhum li abaihim huwa aqsatu inda allah mooy nañ leen woo ci seen baay mooy boo leen di woo askane leen doomi ci seen baay ndax loolu mooy li gën a maandu fa yàlla subhaanahu wa taala kon loolu ci gàttal moom lañ amoon li ñuy wax foofu ndi ki nga xamante ni mooy way jur wu góor wi mooy ki nga xamante ni moom àq pour tuddee doom ji tur waaye tamit la gën a rafet mooy ñoom ñaar ñu waxtaan way jur wu góor yi ak bu jigéen yi bu ko defee utal ki nga xamante ne mooy doom ji tur hada wallahu taala ala wa alam bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala doomu nday mbokk julli di ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dooli koy xéewal ak mucc moom ak i saxaabaam ak képp koo xamante ni topp na ci seen njub ba kero bisum penc mbokk mi dafay laaj mu ni nit ki bu fekkee ni dafa jàpp ba pare daa di foon soxnaam moo xam mu foon ko ci lex wala mu foon ko ci gémmiñ est-ce que loolu day yàq njàpp ah, ngir tontu loolu dañuy wax ni يننت عليه الصلاة والسلام نونة حديث بو خمنتني حديث عائشة نينا يننت عليه الصلاة والسلام أمنا بس مدادي فون كن تي سخنامي بمو جن داري دم جاكا جاتا جاپواتو حديث بابو حديث بويرلا الإمام أبو داود جنينكو أك الإمام الترمذي أه حديث بابو كن ci la boroom xam-xam yi wuutee ni ce que lii di foon sa soxna ginnaaw ba nga jàppee pare day toj njàpp wala deet ñu am ci ñetti wax ñoom boroom xam-xam yi ñenn ñi nii bu fekkee ni laal nga soxna si toj njàpp ñeneen ñi nii bu fekkee ni laal nga soxna si ci bànneex ba yëg ci bànneex rek sa njàpp toj na maanaam boo foo soxna si ba yëg ci bànneex sa njàpp toj na ñeneen ñi ni déedéet même boo ko foonee ak foo ko mënti foon moo xam ci gémmiñ la wala ci lex la comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci laaj bi même bu fekkee ne dañ cee bànneex sax fekk dara génnul ci yow luy waral ni sa njàpp toj na kon boobaa dara nekku ci te wax jooju moom lañ gis ni moom mooy li gën a wér kon wax jooju moom mooy li gën a wér mooy sa soxna boo jàppee pare foon ko ak foo ko mënti foon bu fekkee ni même bu fekkee ni sax da ko foon ci bànneex bu fekkee ni dara génnul ci yow lu mel ni maniyu wala mazyu mooy ndox moom nga xamante ne day génn ci kanamu góor bu fekkee ni ci bànneex bu ndaw la comme ni ko boroom xam-xam yi fuqaha yi di waxee seen téere kon bu fekkee ni dara génnul ci yow luy waral da ngaa war a jàpp même bu fekkee da nga ko fóon sax ci bànneex kon bu boobaa euh, dara nekku ci euh, loolu mooy li nga xamante ni moom mooy euh, li gën a wér kon loolu lañ amoon ci li ñuy tontu ci laaj boobu wallahu taala ala wa alam bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa yi ginaaw bañu ñu sant yàlla subhaanahu wa ta'ala julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ñaan yàlla subhaanahu wa mu dolli koy xewal ak mucc moom aki saxaabaam ak képp koo xamante ni topp na ci seeni yoon ba keroog bisum penc ah, ginnaaw loolu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ah, mbokk mi day laaj lii di wàllu jënd jaay est ce que doomu aadama bi bu fekkee ni jëndee na ci misaal téeméer wala ñett téeméer wala ñetti téeméer est ce que dagan na mu jaay ko ba ci junni wala ñaari junni wala sax ñetti junni bu fekkee ni kam koy jaay ànd na ci loolu wala tamit islam est ce que teg na benn app boo xamante ni bénéfice fa la war a ngir tontu loolu dañuy wax ni amul ci sharia al islamiya benn app boo xamante ni wala limite boo xamante ni teg nañ ko ni kii di jaay fa la war a yemale bénéfice am kon loolu amul ci sharia waaye li am ci sharia mooy yàlla subhanahu wa taala moom moo daganal li nga xamante ni mooy jaay yàlla mu ni wa axalla allahu lbaya wa xarama riba yàlla moom moo daganal li nga xamante ne mooy njaay araamal li nga xamante ni mooy riba kon la am solo rek mooy nit ki jëflante bi muy jëflante mu tegu ci yoon mu bañ cee dugal naka sudul noonu wala ay njuuj njaaj bokk na tamit li nga xamante ni moo ci ëpp solo ci nit ki bu fekkee ni mu ngi jaay mu daal di bañ a fen ki nga xamante ni mooy jënd wax ko li nga xamante ne mooy réalité yi ak li nga xamante ne moo am ci marché bi ndax bu fekkee ni dafa ñëw nit ki montur bi dama la koy jaaye cinq mille francs dama la ko wàññil waaye boo demee ci marché bi ñu ngi koy jaayee sept mille francs wala huit mille francs man nag dama la ko wàññil kon loolu bu fekkee ni lu am la kon loolu kay jënd dina jëriñu te boobaa dafa def li nga xamante ne mooy njekk jëmale ci nga xamante ne moom mooy jënd bu fekkee ni nag lamu wax amul kon bu boobaa fen na ko te nax na ko te bu boobaa yàlla subhaanahu wa taala du def ci nga xamante ni mooy xaalis bu barke ndax yonente bi alayhi salaatu moom moo ni albayaani bil xiyaar maa lam yatafarraqaa mu ni ñaar ñi nga xamante ni ñi ngi jënd ak a jaay ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk am nga ci droit wéyal njaay ma waaye namit kenn ku nekk am nga ci droit daal di bañ a wéyal njaay ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu bu fekkee ñoom ñaar ñëpp dëggu nañ kenn ku nekk wax dëgg wax lu leer sa moroom nee na yàlla subhaanahu wa taala barkeel njaay mi waaye fekkee loolu amul yàlla dina rocc li nga xamante ni mooy barke ma ci njaay mi kon la ñuy wax foofu rek mooy nit ki bu fekkee ni mi ngi jaay nit ki na ko wax li nga xamante ni mooy dëgg wax ko li nga xamante ni moom mu am rawatina wax ko li nga xamante ni moom mu am ci marché bi bu ko nit ki xam la muy jënd ñaata lay jar ci marché bi ndax bu fekkee dafa ñëw xamul ñaata lay jar ci marché bi fekk mi ngi fay jar 1000 francs moom mu ñëw jaay ko ko 10 mille te la ko tax a jënd mooy ñàkk xam bu boobaa loolu day nekk loo xamante ni lu ñaaw la day nekk loo xamante ni euh, ak woor am na ca kon loolu moom moo ci am solo waaye charia islamiya amul benn bénéfice buñ teg ni fa lay yem boo jëndee 1000 francs da nga war a jaayee 2000 wala da nga war a jaayee 1500 déedéet lu neex nga jaayee bu fekkee ni ki nga xamante ne mooy jënd d'accord na ci loolu. ndax yàlla mooy illa an takuna tijaratan an taradin baynakum illa an takuna tijaara an taradin baynakum kon lu dul loo xam ni dëppoo ngeen ci ànd ngeen ci boobaa day nekk loo xamante ni euh, lu dagan la kon charia islamiya amul benn mbir boo xamante ni teg na ko wala app wala benn limite ni lii di njaay fala war am na ci yenn boroom xam-xam yoo xamante ni jéem nañ indi ni kat ku jënd 1000 francs da nga war a waroo dépasser benn somme bi mais wax jooju euh, amul ndëslaay boo xamante ne bu wér la looloo tax la nga xamante ne mooy li gën a wér mooy li ñu jiital sànq wallahu taala ala wa alam na ki nga xam ne dafa laaj mu ne bu fekkente ne moom ak boroom këram am nañ doom wala boog ñaari way dencante bu ñu amee doom kan mooy ki nga xamante ne moo war a wutal xale bi aw tur maanaam lislaam kan la jox ak pour mu wutal xale bi aw tur ngir tontu loolu dañ koy wax ne lislaam baay la jox ak pour mu tudd mu tànnal doomam aw tur yaani ku mu ko mën a tudde tur wu mu ko mën a tudde wu mu mën a doon lislaam baay la ko jox loolu nag tekkiwul ne Euh, baay bi bu koy def du ci waxtaan ak yaay ji loolu lu rafet la waaye nag ñoom ñaar bu ñu wuute woon kii ne nii lañ koy tuddee kee ne nee lañ koy tuddee wala kii ne kii lañ koy tuddee kii ne kee lañ koy tuddee bu boobaa baay ba mooy ka nga xamante ne moom la lislaam jox aqi mu wutal xale ba aw tur léegi nag li gën mooy ñoom ñaar ñu waxtaan ba dëppoo ci ay kàddu nga xamante ne loolu day tax seenub diggante dëgër loolu day tax seenu diggante dëgër bëggante gi ñu bëggante di gën a yokk cofeel gi di gën a yokk te loolu day rogalaat ba ci njaboot gi euh, alxaafid al ibnul qayim rahimahullahu taala ci téeréem boobu ñu xam ci bunt boobu mooy tuxfatul mawduud bi axkaamil mawluud nga xam ne da leeral lépp loo xam ne aju na ci euh, doom juy doog a juddu ak lay ñëw gannaaw ga lépp ci ay àtte ci lislaam nee Euh, lislaam la jox lislaam bàyyi la jox àq pour mu wutal doomam aw tur mu ne loolu daanaka sax nit ñi wuute ci nit ñi wuute wuñ ci euh, kon boroom xam-xami lislaam yi daanaka wuute wuñ ci loolu waaye nag loolu tekkiwul ne baay bi waxtaan ak yaay ji ak dëppoo am ci seen diggante nga xamante ne loolu day tax seenu cofeel gën a bari gën a yokk te it du wuute ci masala yooyu nga xamante ne mën naa indi léeg-léeg euh, ab gàkk-gàkk ci euh, seenub jëflante ñoom ñaar waaye nag su fekkente ne wuute nañ nag ñoom ñaar kii xëcc jëm fii kii xëcc jëm fële bu boobaa lislaam bàyyi ji la jox àq jooju di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu dëppale xoli jullit ñi waaye mu dëppale xoli ñi nga xamante ne ñooy euh, way dencante yi gën a yokk seenu cofeel Euh, te bañ caa indi benn gàkk-gàkk ak benn ñagas-ñagas loolu daayel loolu daal mooy li nga xamante ne moo aju ci moo aju ci wàllu googu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam keroog ba mu yewoo benn bis toog ak saxaaba yi ne leen a ah, bii kët yàlla def ma yàlla may na ma benn doom yàlla may na ma doom te it tudde naa ko sama baay Ibrahim xamante kon ci histoire l'islam manam gisuñu foo xamante ne euh, kudul bàyyi mooy tànnal doom aw tur maanaam bàyyi bi moo koy tànnal mooy tànnal doom ji aw tur xool kim koy tudde ku mu doon it euh, waaye yaay ji bàyyi bi mën na cee waxtaan ak moom ñoom ñaar ba ñu dëppoo ci euh, moo xam nañ danaan ko ah kii kat xoolal ci say mbokk kan laa koy tudde bu ko defee yaay ji tànn ne ah kon tudde ko diw mu daal di ko koy tuddee loolu lu rafet la bokk na ci liy rafetal ab diggante bokk na ci li koy dëgëral bokk na ci liy yokk cofeel diggante ñaari way dencante waaye daal nañ xam ne ci cosaan moom àq ji ki ko lislaam jox mooy baay bi waaye nag tekkiwul ne toujours day opposé yaay ji du ci waxtaan ak moom loolu day gën a loolu dafa nekk loo xam ne euh, lu rafet la mooy waxtaan gim ciy waxtaan ak moom yal na yàlla subhanahu wa taala defal ñu tawfiq defal leen ko بسم الله نيغي سانت بروم بي تبارك وتعالى دي نيان يالا جام اك خيوال اك موتش يالا دوتيكو تي سونو سانغ با سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم غيناو لولو نيغي لين دي نويو نويو بالاسلام دي لين واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بو لولو وي مبوك ميغا خامني دا فا لاج موني يان ميلوكان موي ميلوكان جوليب بو جيجين تي غاتال ngir tontu loolu dañ koy wax ni laaj la bu dafa yaatu lool waaye dañ koy jéem a tënk ci tomb yi nga xamante ne moom lañuy bëgg a tudd bi ci jiitu mooy yan melokaan moom la jullit bu jigéen war a melokaanoo digganteem ak boroomam mooy lan moo di mu topp yàlla subhanahu wa ci def ay ndigalam bàyyi ay tereem ay kàttanam wattu li nga xam ne mooy julli juróom di wéetal borom bi tabaraka wa taala te moytu bokkaale yàlla comme niñ ko digalee jullit bu jigéen kon digganteem ak boroomam li ko yàlla sant ci ay jaamu yàlla yépp mu na ca waaye li ko yàlla tere ci ay mooy yàlla mu daal di koy bàyyi gannaaw gi mooy yan melokaan la war a melowoo ak ñi nga xamante ñooy ay wayjuram mooy li yàlla digal góor mooy ñu rafetal jëme seen ñaari wayjur doonte sax duñ ay jullit waaye bu leen topp ci mooy yàlla doonte sax ay jullit lañ waaye àndal ak ñoom ci àdduna di dund ak ñoom ci ak njekk waaye nan la wala jigéeni jullit nan la war a melokaanoo mooy ñetteel bi digganteem ak boroom këram xanaa mu topp ko ci lépp loo xamante ne du ak mooy yàlla wattu ak yi nga xamante ne moo war ci moom te jëkkëram moom ko mu wattu li nga xamante ne mooy alali jëkkëram wattu li nga xamante ne mooy njabootu jëkkëram yar leen teg leen fi nga xamante ne fi la sharia rëdd wattu dugal këram képp koo xamante ne neexul jëkkëram waaye mu wattu boppam ba du mooy yàlla waaye mu dab bànneexu jëkkëram kemtalaay kàttanam waaye sopp nañu it muy fexe ba jëkkëram du dégg ci moom kàddu gu naqari waaye kàddu gu neex rek fexe ba lu muy toggal jëkkëram muy lu neex fexe ba lu jëkkëram di xeeñtu ci moom mu doon lu neex ak ci këram waaye fexe ba melokaan wu neex jëkkëram mu di ko soloo bu wéeteek jëkkëram ci biir këram naka la jigéen wara a melowoo digganteem ak njabootam mooy mu yar leen ci lislaam fii nga xam ne fee la lislaam rëdd ne nit noonu la war a yare njabootam jaarale leen foofu mu jaare leen foofu jëkkëram mu jaarale foofu njabootu jëkkëram loolu mooy melokaan yi nga xamante ne nit ki war na koo melokaanoo wala ko melowoo moom jigéenu jullit digganteem ak ak njabootam waaye mu gàtt ab tànk gàtt ay wax sax ci kër boroom këram te du génn kër boroom këram lu dul ci ndigalal boroom këram waaw léegi fi ñuy jeexale mooy jigéenu jullit te muy lu am solo yan melokaan la war a melowoo digganteem ak mbokki jëkkëram waaye digganteem ak ñeneen nit ñi digganteem ak mbokki jëkkëram mooy mu rafetal lu mu man waaye mu xam nit ku ci nekk la nga xamante ne moo war sa digganteeg yow ci ak rafetal ak fa nga war yam ak moom waaye ñi nga xamante ne ñooy doomu aadama yi nga xamante ne ay jàmbur lañ ci moom mu fexe ba buy génn ci ñoom ñuy teg bëtam ci ñoom mu nëbb aw yaramam ba aw yaramam lenn ci awraam du feeñ lu dul xar maanaam li dagan mu feeñ mooy xar kanamam ak tikki jaraam melokaan wii mooy melokaan wi nga xamante ne ab jullit bu jigéen ci gàttal gu gàtt war na ko meloo di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko wallahu aalam